salaamaaleykum mbokk internet public SN TV ñu leen di nuyu bu baax a leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy faral di defee à chaque fois mu nekk entretien spécial boo bu mag a mag boo xamante ni dañu ko présenté Sénégalais yi ku ñuy faral di déglu la ci li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu Sénégal dama koy bàyyi mu nuyoo su nuyoo pare ñu daal di waxtaan bi maa ngi leen di nuyu. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam soxna si maa ngi lay nuyu ak équipe technique bi nga àndal Public SN TV di nuyu képp koo xam ne mi ngi topp émission bi ci àddina bi yëpp wërgal këpp. Mm-hmm. Euh, alors dañuy dem directement ci li nga xam ne moom mooy question yi euh, mun nañu wax ne depuis le huit ba tey actuellement dañuy jëm ci benn climat boo xamante ni c'est un peu tendu à travers le territoire du pays ñu bëggoon rek sa perception par rapport ak situation boobu. waaw c'est vrai que képp koo xam ne yaa ngi settantal di taxaw seetlu li xew jëf yi. Euh, waa ñi mang ci politique bi di jëf wala wax yu ñuy wax sa xel du dal loolu moom c'est clair damay faral di citer Alexis Carrel ci téereem l'homme c'est inconnu euh, mu ci wax ne à certains moments c'est les fous n'ont pas peur. seuls les fous n'ont pas peur. Mhm. parce que néna les, léeg-léeg jamono toll foo xam képp ku am xel di parce que da ngay xam bu démé ni du mujjé jamm ki nga xam ne nag am du la xelam danga koy gis muy romb di dem di tey di lekk di naan loolu la bëgg a wax foofu à certains moment seuls les fous n'ont pas peur kon Sénégal toll na foo xam ne aussi wax dëgg yàlla euh, kuy seetantal yiy xew ni ma ko waxee woon sama benn euh, post Facebook mm-hmm. la rhétorique guerrière et violente de la classe politique politique ngeen baal ma ñi di wax gat sa gat sa ñi naan caw sa xiir ñi naan xawma quatrième vague ñi mortal combat ma ne ah. kon léegi waaw. kon classe politique sori les grands hommes et les grandes femmes politiques du Sénégal boo jëlee ba ñoom Lamine Gueye ñoom Blaise Diagne ñoom Senghor ñoom Cheikh Anta Diop ah, ba ci ñu mujj ñii fii doon nañ wax ay yu adversaire politique mais li ma gis actuellement te moo effectivement jar na nit ñi ki nga wuteel ci wàllu politique ci penc politique bi ci kujje politique bi nga war ko jàppee adversaire maanaam koo xam ni dafa jàpp ne moom war na laaj réew mi wala laaj mairie wala laaj député mooy poste électif yi daal mm-hmm. eh, yow tam nga ni jàpp ne yaa ko gën a yey ci loolu di nga di nga wan askan bi ne man maa gën a yeyoo poste yooyu parce que maa gën a mën a defar réew mi ak eh, faj seeni soxla léegi nekkatuñ foofu man débat yooyu laa xamoon ñun suñu génération. faible. très faible trop bas sax dafa rafet parce que xam nga lu tax mooy ni débat mi ngi fi ba pare baa. Mhm. débat daf fi amul ay saagante moo fi am ak ay artonte moo fi am. Mhm. Euh, ni ma la wax gàtt sa gàtt sa loolu débat la. bi ko ñoom Ousmane Sonko waxee fii ki nekk fi Medina euh, Fall. Bamba Fall Bamba Fall ne ko boo ñëwee fii ma caw la xiir. loolu débat la <laughs> loolu koy moo tax soo nee c'est trop sax danga leen di waxal lu rafet loolu kon débat sax daanaka amatul même plateau yi léegi pour nga am benn débat bu sérieux daanaka gënalul nit ñi nit ñi li ñu bëgg daal mooy wax yu tàng artonte jaay guerrier euh, donc loolu laa gis ne fi mu nekk nii euh, fa la réew mi toll kon au lieu nga ni kii sama adversaire politique la mm-hmm. mais sama noon la kon léegi sax lu ma mën a def sax pour faagaagal ko dama koy def moo tax xoolal léegi bu njëkk ba ñu suñu génération boo doon déglu Senghor muy wax ngay déglu Cheikh Anta Diop déglu comme ni ma ko waxee. doo dégg kenn ci homme politique wala femme politique yi muy laal vie privée ki muy waxal. par exemple loolu c'est un marqueur. Mm-hmm. indicateur la tegtal la. Mm-hmm. doo ko mës a dégg muy wax ci njabootu kooku wala eh, dafa xees wala dafa gàtt wala que yow bañ la mës a dégg ngay wax naa nangam toujours ci li ñu doon waxtaanee mooy réew mi penc mi. mais xoolal léegi ay yow daaw mbës nga par exemple xoolal loolu ñaawlu naa ko trop mën naa wax ne sama yoon newu ci quelque part mais en même temps comme damay wax ak xale yi aussi mhm. man damay wax ak xale yi parce que ndono mi damay bëgg xale yi jot ci ci anam bu rafet mhm. euh, léegi homme politique yi ñoom li ñuy xëccoo mooy nguur ak nangam ak nangam ñun ñu nekk société civile nekk tam religieux ñun li ñuy xëccoo mooy doona mu rafet ci loxo xale yi ñaar yooyu mën na wute daal moo tax démarche yi day wute su ko defee euh, loolu ma dégg Bart ak Ousmane Sonko te du ñoom ñaar rek mooy ñu mujj. mais fan yee yëpp yéen a ngi doon dégg. ku nekk loo xamal ci sa morom. daanaka loo ko waxalul rek danga nga koo xamalul des fois sax nga sosal ko. Mm-hmm. parce que la preuve mooy lan mooy la preuve da ngay yéen saa yi nga wax dara ci sa adversaire politique ki war a nekk sa adversaire politique mais comme ennemi nga ko def léegi nag. kooku sax léegi bu la ne indil tegtal ci li nga wax nga ne ah ngeen baal ma dañ ma koo wax wala déggéew da nga comprendre ni mooy wane yéen saay sax nga sosal ko ndax rek bëgg koo faagaagal te fekk euh, politique normalement souvent dañuy wax sax l'arène politique mais sax jekkul waaw ah, politique lu rafet la war a doon comme ni ma ko waxee sama post bu mujj bi bi ma mujjee def nii euh, tuddee ko xam fàtte naa ni ma ko tuddee encore euh, da ngay ñëw ci penc mi pour indi projet de société pour indi programme pour jéem a séduire peuple bi ah ba pare yow sa bopp tam nga am yar ak teggin ba ba nit ñi mën laa wóolu daal rafet njortu ci yow. maanaam côté moral c'est important donc ñëpp a ngi wax valeur éthique dégg la ñoom ñëpp ku nekk maanaam valeur éthique waaw nag corruption bi dafi jóg. mais kii wax loolu ci boppam rek nga wuteek moom xalaat rek mu mu dagg saaga wala mu kii kooku kooku kooku dina dina yor réew mi ci éthique. ak valeur ak xamante ni ñoom ñooy euh, suñu ay leader politique parce que parfois aussi boo leen déggee ni ñu waxee est-ce que du seen seen xam-xam moom moo des. yaakaaruma seen xam-xam moo des donte woon sax euh, politique euh, en réalité politique. laajul noonu xam-xam politique li mu gën a laaj mooy xereñ xam nga am na différence sagesse xereñ parce que politique xoola tey ji euh, amul école bu ñuy former ay homme politique ay femme politique noonu amul science politique am na loolu moom xam-xam ci wàllu université xam da ngay jàng yifu politique ak yu mel noonu mais ñun li ñuy waxtaanee nii maanaam ñi def politique loolu daanaka euh, xereñ la laaj rek ak talent ak xam nooy waxee nit ñi et cetera euh, kon yaakaaruma ni dañoo ñàkk xam-xam mais pour man ñàkk xereñ la ak ñàkk dal euh, ak yàkkamti waaw euh, soit koo xam ni dafa yor nguur ragal koo ñàkk boroom xam-xam bi loolu la doon wax mu ne ñaar ñi na ngeen leen moytu ki yor nguur ragal koo ñàkk ak ki jàpp ni dafa yeyoo nguur te jotagu ci na leen bàyyi xel te ñoom seeni mbir danañ def loo xam ne ñoom ñoom ñaar ñooñu ku ci nekk di nga jege loolu bàmmeel wala kaso wax nga lu ki ki yor nguur ragal ko ñàkk. Mm-hmm. ak ki jàpp ni dafa yooyoo nguur te jotagu ci. Mm-hmm. bu ñu deful ndànk rek dinañ def loo xam ni wala wax loo xam ni dana leen yóbbu ci bàmmeel wala ci kaso. Hmm. kon nag fi ñu toll nii. pour man lajj nañu classe politique bi fi nekk actuellement lajj nañu.

homme politique boo xam ne dafa bëgg yor état bi boo tegee waxtaan privé ci pénc mi pour rek mën a euh, wàññi euh, gis bu rafet bu ñu mën a gisee nit li tubaab di wax wàññi crédibilité man kooku duma la wóolu ci nga yor état maa ko doon wax bu yàggul rek man leen jëlal Tanor Dieng Ousmane Tanor Dieng est-ce que xam nga depuis Senghor mi ngi ci pouvoir bi Ousmane Tanor Dieng danoo bindal Senghor ay lettres mu nekk noonu nekk noonu ba ci abdu Diouf daanaka ci ci sengoor ba abdu Diouf Ousmane Tanor Dieng amul lu ko ëmp ci mbootu état Sénégal mas ngeen ko dégg mu dugg ci ay détails li mu yóbbu ci mbootu Sénégal ci bàmmeelam kenn xamul nu mu doon loolu mooy am d'état mm. Ousmane Tanor Dieng su waxoon dëkk bi tàkk hmm? waaw parce que li mu xam fii depuis Senghor jëflante naa ñëpp mm. am na loo xam ne su ko waxoon